برهام باء وراء ألف ثم ها ميم مجل فيض تيجان جخن نينان الحمد لله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على أشرف المخلوقات سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ورضي الله عن الختم الكتم مولانا أحمد بن محمد التجاني وعن خليفته ومظهر فيضته قطب الإرشاد وغوث العباد مولانا الشيخ إبراهيم بن الحاج عبد الله وبعد السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته ما ني مولو مو في فك ييب كو نيك تي تورام اك جيمي بوبام دي جيتال تي مولانا الخليفه شيخ احمد التجاني شيخ ابراهيم نياس دي نيان يالا ياغال كو في تي وير اك تال اي سيمبوم ييب تي naka noonu itam maa ngi nuyu imaam alxadra li imaam cheikh ahmed tijaani seydi ali sise moom itam di ko ñaanal yàlla yàlla yàggal ko fi ak wér ak tal matal mbooloo mi sembam ci kanamam yaakaar naa ne dëkk bu nekk dafay am buntu ak dëkk ba ci boppam te borom këcc ci pay bi waxoon na bu yàgg ne madinatun ussisat bi cheikhi tasiisan la shakka an aliyan baabuha siisa kon soo nuyoo buntu dëkk ba dugg ci dëkk bi yaakaar naa ne ñi aju ca dëkk ba yépp nuyu nga leen waye du tere itam ñi jagleel nuyo kilifa yi nga xamné fekk nañ leen fi ci sama jor cheikh mohammed Mouhamadul Mahdi ni cheikh Ibrahim nga xam wax na fi légui wax yu jotal ak conférencier bi nga xamné fekkon nañ ko fi muy waxtaan waxtaan wu am jëriñ naka nonu itam cheikh bukar naka nonu Cheikh Sirajuddin bi nga xam ne moo jiite na thaqaafiya bi ak ñi ànd ak moom di moom ñoom ñépp ku ci nekk maa ngi lay nuyu ci sa tur ak sa jëm di sant yàlla bu baax nag ci jotaay bi nga xam ne amut sikk ne bés la ci bés yàlla yi yonent bi sallallahu wax na ne inna lillahi fi ayaami dahrikum la nafaxaatin alaa fa taarradu yàlla am na ci seeni bési jamono bés yoo xam ne dana ci upp ay uppin ngella na ngeen ko gaarlu amaana uppin ëpp ci nit dootu texe di mukk gannaaw ba ñiy waxtaanee lu am solo muy xam-xam ak njëriñam ci àddina ak yitte gi nga xam ne bàyyi joxoon na ko xam-xam waaye balaa dugg ci waxtaan woowu danaa def tënk bu ndaw rekk xam-xam li muy def ci nit awalan bokk na ci lii nit ki di njëkk a jàng danañ la wax ne la àddina bi ñeenti mbir a fi nekk bi ci njëkk jamaat la beneen bi nabaat la beneen bi xayawaan la beneen bi insaan jamaad moom am na poids ba pare itam am na num toll am na lu muy jëriñ xayawaan moom itam am na poids am na lum toll am na lu muy jëriñ waaye moom dafay màgg dafay yëngatu nabaat am na poids amna num tollu amna lu muy jeriñ danay mag waaye du yëngatu insaan muy doom adama mom amna poids am num tollu am lu muy jeriñ di mag, di yëngatu ba pare yalla yokol ko ci leneen lu ñuy wax al qudwal idrakiya manam katan buy jot manam xel katan buy ragne nga gis ne ñetti ko jitu yeb muy ak jamaat ak nabaat ñoom ñëpp dañ leen di jëriñoo waaye duñ jëriñoo dara doomu aadama rek moo ciy jëriñoo te li tax mu koy jariñoo mooy quwa al bi nga xam ne yàlla defal na ko ko mu am ko te yeneen yee jiitu amuñ ko moo tax mu mën a jëriñoo loolu yépp quwa al boobu nag muy xel li nga xam ne moo koy defar ñoŋol ko ba mu baax ba mën a liggéey moom mooy xam-xam nit ki su amul xam-xam xelam du ñoŋ te itam la mu war a def ak mu warta def mën na koo bañ a xam waaye su amee xam-xam dana xam lu muy ràññee ak li mu war a def ak li mu warta def moo tax boo demee ci alquran laqad xalaq na linsaana fi ahsani taqwim googu yàlla di wax ci alquran moy bu nit ki samé xélam dafar ko ba mëna jëriñu di jëriñe wayé lolu bu amul rek la ca top la moy asfala safilin manam mo gëna doyé di kuy doyé di ndax yalla bindon na la ba nga mat jox la quwwa idrakiya wayé nga fexé ba waccé sa bop ci niveau yi nga xamné ñom lolu amuñ ko ba légui itam yalla mu ngi wax ci alquran ne illa kal an'ami balhum adallu sabilan maanaam ñooñu dañoo mel ni sax ay bàyyi ma wala sax ñoom ñoo gën a réer bàyyi ma wax na feneen ka annahum xushubun musannada dañoo mel ni rek ay bant yuñ taxawal rek benn njëriñ amuñ ko kon nga xam ne kon nit li tax muy am njëriñ ak itam li tax muy jëriñ société am xam-xam mooy buntu loolu comme xam-xam nag mooy buntu loolu yépp bàyyi ridwanullahi alayhi bim ñëwee lim ñëwee te xam ne lim bëgg a taxawal du ko mën mukk lu dul ci xam-xam dafa defar ay nit yoo xam ne nii baax nañ ba mën a baaxal ñeneen waaye baraamoo dugg ci defar nit sax moom ci boppam façon bi defaroo sax jàngat la ndax yàlla dimbale na ko mu sosu yaru ci biir boo xam ne bii ilmiya la kër goo xam ne kër xam-xam la muy kër baayam di kër maam alxaaji abdul maam alxaaji abdullahi nga xam ne ñépp xamoon nañ ko ci xam-xam mu nekkoon nit koo xam ne daf doon jàngale suba ak ngoon guddi ak bëccëg dundam yépp mu paase ko ci jàngale xam-xam ngir mën a defar ay nit yoo xam ne nii suñ taxawee danañ sauver société bi te loolu yàlla defal na ko ko te am na ay gëstukat yoo xam ne dañoo wax ne 71 pour cent ci nit ñi maanaam ci doom yi buñ màggee seen habitude yi bàyyi la ñuy amee maanaam seen jikko bàyyi la ñuy amee te maam Alaaji Abdoulaye comme ko jàngale moo nekkoon biram te itteem yëpp ci loolu la ko daf ba ñemee taxaw ne li yadul tuulaa fi tafsiri kitaabillah maanaam am naa loxo wu gudd ci firi téere yàlla bi te fi téere yàlla bi xam ne tafsir ñi jàng xam ne nit ki baraa ko baraa wax ne kii mu la force mu am saqaafa amma am saqaafa xaasa saqaafa amma dana xam ilmu luga nga xam ne ay naxwoog balaaxaak yooyu yëpp a ci sarf ak yeneen dana xam tamit ilmu sharia nga xam ne fiq tawxid aqida ak yooyu yëpp ñu ngi ci dana xam siira ba pare itam dana am saqaafa am maam dana xam marwiyaat yi xam-xam yu bari ngay dajale soog a nekk mu fassir baayam su taxawee wax ne moom am na loxo wu gudd ci loolu mooy ne xam nañ ci ne yeneen xam-xam yépp goreel na leen nit ku mel noonu nag nga yaru ci roonam mu jàngal la yar la defar la xéemewut mukk nga feeñ façon bi nga feeñee li yéeme kay mooy nga ñàkk feeñ façon bi nga feeñee waaye itte bi nga xam ne bàyyi itte woo na ko xam-xam li la koy wan mooy bi mu nekkee xale bu ndaw nekk ci kër baayam wax wax woo xam ne nit mën naa dem ba nekk mag te du ko ñemee wax mooy matlab yi an akuna qutban faridan lil baraya la gayra hada achimu maanaam sama càkkutéef mooy ma nekk xutbul farid maanaam xutbul aqtaab yi lu dul loolu soxlawuma ko xale bu ndaw nek ci eh, ma dundam di wax ne sama càkkuteef moy ma nek khut bu ñeel mbindeef yépp kooku kon xam nañ gis-gis bu reey la am bëgg-bëgg bu reey la am gis-gis bu reey bobu nak mu am ak bëgg-bëgg bu reey bobu mo taxoon mu teel commencé di jàngale teel commencé di defar ay nit ndax xam na ne mbir ben nit du ko doxal te ñi nga bëgg ñi dimbale la ci li ngay def war nañoo xam ndax buñ xamut nit ku xamut bu la bëggee defaral sax daf lay yàqal comme loolu la nag mu defar ay nit bokk na ci ñooñu Seydi Ali Cheikh Serigne Bay Serigne Ousmane Ndiaye ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne ci darsam bi lañ bokkoon mu di leen jàngalal boppam moom tëkkuwin leen defar leen ba wóolu seen xam-xam bàyyi leen itam ñoom itam ñu ubbi seeni daara di defar ñeneen waye amut ci loolu kessé bëgg gi mu bëgg xam-xam taxna na dem na sax ba di ci wëy di xirtal xale yi ak seeni wajur yi pour ñi juk jublu xam-xam googu abna ikhwati wa al madrasa min zil madaris aruni qabasa يا أيتها البنات زاحمن إلى نيل العلا أما بأبدان فلا أحبتي fal tursilul wildaana kay yaqra'u waqta sibal qur'aana maanaam di wax ne yéen su may doomi mbokk yéen waa école bi maanaam ñiy jàng ci école ba wan leen ma flag yi maanaam wan leen ma lu may tiitaroo ana drapeau bi ku koy yenu mu mel ni góor ñi dañoo foog ne ñoom rek la ñuy wax mu ne déedéet yéen jigéen ñi itam ñëw leen taxaw rëj rëjloo leen ak góor ñi jëm ci hitte yu kawe yi waaye rëj-rëj looyu yaram waxuma ko maanaam rëj-rëj foofu xel moo ko soxal foofu ndax xam na ne xel moom mooy doxal nit te xel maanaam nit ku am xel ak nit ku muus bokkul dafa dafa jege lool te bokkuñ muus nit mën naa muus di def ay pexe ba génn ci waaye nit ku am xel lépp lu koy lor moom du ci dugg maanaam lépp lu muy def lu koy jëriñ lay doon loolu mooy xel bokkut ak muus comme xel moomu nag xam-xam moo koy ñoŋ mu ne yéen jigéen ñi itam rëj rëjloo leen ak góor ñi dem ci barab yu kawe yooyu waaye bu mu nekk rëj yaram kese daal di oo nag ñi nga xam ne ñooy ay soppeem ne ahibati fal tursilul wildaana ke yaqra'u waqta sibal quraana maanaam yéen ñi nga xam ne samay soppe ngeen yóbbu dee leen yóbbu xale yi jamono bi ñuy nekk ndaw ñi dem jànge alquran lu tax mu wax jamono ndaw ndax nit ki su nekkee xale xelam du am soxla ci yu bari te itam lépp lu lum jàpp ci ndaw pour mu fàtte ko dana jafe lool ndax soxlaam du bari ak yeneen ak yeneen wax nañ sax ne xale bi nga xam ne dafa nekk xale di jàng alxuraan nga xam xikma bi bàyyi wax ne nañ leen dugal ñi jàng alxuraan heure bu nekk su demee ba nekk mag buy bokkeek école koo xam ne jàngul alxuraan moom xelam mooy ëpp lum gën a mën a jàpp ki nga xam ne jàngul alxuraan te loolu li ko waral mooy tubaab yi dañ lay limité ci liñ lay jàngal lu tuuti lañ lay jàngal rek bàyyi la te xel dafay miin loo ko tere ne ba miin loolu rek jeex na waaye boo duggee di jàng alxuraan ñi di la mokkaloo ay sumun rubo ngay mokol loolu yeb sa xel mi fay min loolu ba da ngay dem ba bu yagge mokol du ci sa problème motax mu ne nañ leen dugal ñi jangar quran pour ñawal seen xel yi mu ñaw ba nga xamne ne danañ mëna jang jàng leneen gannaaw qur'an wo waye mut ci loolu kese bëgg gi mu bëgg xam-xam taxna mu defar ay jang yoo yo xamne ni nit ñi dañ fay dem di jàng xam-xam wax moom ci boppam sax ne moom ci jànguwaay yooyu la génnee maanaam madrasa bi keroog ba mu ko tax taxawale wax na ne moom ci école alaaji Abdoulaye boobu ci la génnee ngir bëgg rek nit ñi heure bu nekk di fuglu xam-xam bëgg itam nit ñi nekk nit ndax xam-xam rek mooy def nit nit nit bu fekkee ne ni yow amoo xam-xam mën nga dugg ci erreur yi bëri parce que xam-xam moom mooy tax nga ràññee ndax lii dama ko war a def wala waruma koo def nit ku amul xam-xam mënta ràññee jamono ji nag ñu bëri dëddu nañ ut xam-xam waaye dama ne du jamono ji kese loolu yàgg na ndax jamono Baye sax loolu mi ngi fi woon ndax Baye wax na ko wéy na ko ci biir wéyam yi qad tadaa ahlu zamani bi tarki l ilmi wa diini libtigaa il maali rabbi hada al abdu daif munaahu ishtigaal fi l ay ishtigaali maanaam ñoon jamono mu ne ñoon jamono ñoom ñëpp dañoo jug fi mu ne ngir bàyyi xam-xam ak diine ngir euh, ut alal mu ne yow yàlla jaam bu xeebu bi muy moom baay itteem yépp mooy liggéey ci xam-xam itteem yépp mooy liggéey ci xam-xam moo tax mu tuddee boppam xaadimul ilm soo demee ci téeram boobu mu taalif muy tabsaratul anam fi anna al ilma huwa al imam mu ngi ci tuddee boppam ne moom mooy serviteur yi xam-xam maanaam moom mooy liggéeyal xam-xam te wax na dëgg ndax liggéeyal na ko ba mu koy mën moom ci jëmmi boppam tabax na ay école nit ñi di fa jàng emut ci loolu sax ba mu demee ba gis ne jamono changé na mu daal di bind ay leetar yónnee ko ci Maroc Caire yónnee ay baaxaat ilmiya ñi génn dem jàngi uti xam-xam gu mën a dox ak seeni jamono waaye amut ci loolu itam mu ñaan ne nañ ko yónnee itam ñoo xam ne dinañ ñëw fii pour ñi nga xam ne mënuñoo dem itam ñoom itam ñu mën a bénéfice yoo ci ñooñu loolu yépp bëgg xam-xam moo tax mu def itte boobu bëgg xam-xam ak xam njëriñi xam-xam moo tax sonn googu yépp mu sonneeku boo seetee leetar bi nga xam ne bind na ko moom Baye keroog ba nga xam ne mu ngi ebal ay beexta pour ñu génn jàng leetar boobu rek dama ne doy na pour conférence ndax képp ko xool settantal ko nekk jàngkat yow mën nga cee jumoo ndax ëddawaat yi nga xam ne nit kuy jàng moom la war a am pour réussir ci jàngam bi bay teunk nako ci bir leetar bi nga xamne mom la bindon doomam yoy ma ngi fàttaliku keroog ba may dem qahira imam Cheikh Tidiane Cissé dafa o Rabbani mu ñew mu ne ko taril leen leetar boobu bay bindon mu tari ko ci suñu kanam ñu dégg ko bam jeex gannaaw lolu sax ñun si lañ def itte mokal bi ngir bëgg ko ak rafet gi nga xamne mi ngi ci waye itam ak kuy jang nan la wara mel manam loolu mo ci upp solo ci biir lettre bi baye def na ci ay taw jihaat yoo xam ni wane na ci kuy sàkku xam-xam nan la wara mer indi na ci juróom bu la nexé nga ne ñent bim ci jital wax na ne bi njëkk ci kuy sàkku xam-xam moy at taqwa manam mu ragal yàlla ndax wax na feneen ne li ann taqwa miftahu kullu matlabin lil abdi dunyawiyin wa oxrawiyin zahirin wa batinin ne kii sàkku xam-xam li jiitu ci moom mooy ne ragal yàlla ndax ragal yàlla mooy caabi bépp càkkutéef pour jaam bi ci lu feeñ lu nëbb àddina ak àllaaxira te lu koy dëggal mooy imaam Shafii radiallahu anhu dafa neexoon xel ba nga xam ne jamono bi muy jàng lu mu xool daana ko du ko xoolaat waaye mu am ben jamono mu tok ci ron garab ab jigen rombo ko di dox ngelaw li malana ab jigen ji heli jigen bi feñ mu sigi yem ci tay ko sax bam mu di jang jang ba mën ta mokal mu dem ci serignam wakiya ko ne ko man defani mokal daf ma të mu ne ko bayil moy yalla mu ne ko moy yalla mu ne ko waaw mu ne ko man moy ma yalla mu ne ko damal nga xalaat rek bimu tok ne ba ma toogee ca roon garab wa ndaw sama rombon ma gis helam bi xeyna kon lol moy moy yàlla bi nga gis taqwa bi bay di wax njëriñ bi bam sadd ci ay way mom Shafii ne shakawtu ila waqi'in suwa fahmi fa arshadani ila tarki ma'asi wa akhbarani bi anna al ilma nurun wa nuru allah la yuta li 'asi mune ne jàmmatal naa sama serign sama ñaaw ak dégg maanaam yéex a bi ma dab mu ne mu digal ma ne ma naa bàyyi moy yi naa bàyyi mooy yàlla wax ma itam ne ma xam-xam leer la te leer googu yàlla du ko dugal ci dënn kuy moy nga xam ne kon bàyyi lim jiital noonu ne taqwallaahi lu am njëriñ la ci nit kuy sàkk xam-xam ndax yàlla ci boppam sax wax na ci alquran ne wattaqullaha wa yuallimukumullah wallahu bi kulli shay'in alim maanaam ragal leen yàlla yàlla xamal leen te yàlla xam na lu nekk yonent bi sallallahu alayhi sallam itam wax ne man amila bi maa alima warathahu llahu ilman maa lam yaalam képp koo xam ne nii jëfee nga li nga xam yàlla dana la donnloo xam-xam boo xamutoon loolu mooy dénkaane bi njëkk bi nga xam ne bàyyi dénkaane woon na ko ci wasiya boobu ñaareel bi mu ne muy al juhd fi talab maanaam kii sàkku xam-xam na def itte ci sàkku googu ndax nit ki lu mu defut itteem du ko am ndax xam-xam yombut dafa metti dafa ànd ak coono ànd ak yu bëri comme loolu yëpp nag mi ngi ci nit ki force mu muñ def itte pour mën a jot loolu ndax wax nañ ne man lam yazuq murra taallimi saatan tajarraa gulla jahli tuula xayaati yi képp koo xam ne nanguwoo muñ coon ak xam-xam benn génneeku danga naan kaasu toroxtaane ak réer sa giir ak dund danga ko naan maanaam su fekkee ne nanguwoo muñ dara ngir ut xam-xam sa dund gi yëpp ci coono lay nekk xam-xam boo koy wut dëgg la ci coono ngay nekk waaye coono bi nag ak diggante rek la boo xam ne diggante bu gàtt la yiw moo ciy topp ak noppalu sa giir ak dund boo seetee sax jaamiat Harvard muy université bu siiw ci àddina bi ñëpp xam nañ ko bind nañ ci seen buntu université boobu ne alamu dirasati lahzatan wa tantahi lakin ihmalaha alamun yastamir madal xayaa ñi ne coonoog jàng ab diggante la rek mu jeex waaye coonoog ñàkk koo def nag coono la koo xam ne dafay ànd ak yow sa giir ak dund du la ba mukk moo tax bàyyi ne na ngeen góorlu maanaam na ngeen def juhd ndax jàng dafa ànd ak coono te képp koo xam ne nanguwoo muñ coono boobu doo ko def ñetteel bi mu ne tamassuku bil kitaab maanaam na ngeen jàpp téere yàlla bi boobu mën nga koo wax ne moom ak taqwa benn lañ ndax taqwa mooy jàpp téere yàlla bi téere yàlla bi itam mooy taqwa waaye mu fasale ko ngir gën a leeral yenoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu baadi abadan kitaaballahi wa sunnati bàyyi naa ci seen biir loo xam ne su ngeen ko jàppee du ngeen réer mukk sama gannaaw mooy téere yàlla bi ak suma sunna mu jox leen quatrième bi mooy mu ne ixtiyaarul qarina maanaam nanga nga ut ki ngay ànd ak su fekkee ne dangay jàng na xool bu baax ki ngay ànd ak ndax kiy jàng ak ku jàngut mënuñoo ànd ndax e, àndandoor dafay wàlle heure bu nekk ca biir sax wax na ne anil mar'i la tasal wasal an qarinihi fa kullu qarinin bil muqaarani yaqtadi maanaam nit ki bul ko laaj mukk laajteel ki muy ànd ak rek nit ki boo xamee àndandooram rek xam ko ndax ki muy ànd ak la muy def loolu lay roy te àndandoor ku ne xam na ne dafa am dawru bu mag boo xam ne nii daf koy jugé ci nit ki am na ñoo xam ne nii ànd ak kuy naan sàngara leen tax di naan sàngara am na ñoo xam ne ànd ak ñuy tux moo leen tax di tux am na ñoo xam ne itam ànd ak ku baax moo tax ñi baax waaw kon àndandoor bi am na ci solo ci ki nga xam ne nii dafay jàng mu xool kan lay ànd ak mu tëjee ko juróomeel bi nga xam ne li jàng laaj yëpp la wax tëjee ko juróomeel bi mu ne daamul maddi wal maanawi maanaam di dimbale kiy jàng ci alal bu ko laajee ak tamit ci ay conseil ndax jàng Kijang jang soxla na am nimbal ci wala alal ba nga xamne ni duju jot du jul du yak jotam di juk di dem di wuti manam temps bi mu wara perdre ci uti mu am ño xamne dañ ko dimbalé ba fi ne nii àddina bi doxna sax ba état yu bari ñi ngi kay def di jël ay bourse di may étudiants yi pour dimbale len ko ndax jang dafa am fere ku lepem leppam ngir jang soxla na da'am maaddi boo xam ne dana ko doylu walis muy dem di wuti ndax uti googu noonu mën na koo yàqal jàngam soxla na itam daam maanawi maanaam nga di ko conseiller li mu war a def ak li mu warta def yooyu yëpp kuy jàng soxla na ko te ci biir leetar bi bàyyi bind na ko danaa jàng nusuus yi waaye tënk bi mooy loolu juróom yooyu nga xam ne wax na ko ci biir leetar bi ne képp kuy jàng war nga koo ut ndax wax na ne usikum an laa taalu juhdan fi talabi ilmi maanaam juhdu gi bi ma wax sànq nas baa ngi noonu wa taamuqu fii ma tamassuki taam bi mabaadi l islam islaamia taqwallahi fi sirri wal jahr ñaareel baa ngi noonu mooy taqwallahi fi sirri wal jahri wa muraqabatihi ma al anfas xasaba taqa wa tamassuki bi kitabillah bi an yakuna alqurana nasba ayunikum fa inna allaha tabaraka wa taala قد من علينا وعليكم بجميع هذا الدستور العظيم الكفيل بسعادة الدارين في صدوركم فلا تستبدلوا به غيره تستبدiluna alladi huwa adna billadi huwa xayr waaye foofu mu taxaw nag daal di ñëwaat ci taqwa gam ba mu njëkkee woon ne innama badatu bi taqwa li annahu miftaaxu lilm fala tastaxifannakum almaddata an almaana fa inna lilmaddati unaasan wa lilmaana axarin maanaam lii mooy dénkaane bi nga xam ne nii ci biir taxañ na ci juhdu al ijtihaad maanaam ijtihaad fi talab fi talab dugal na ci itam taqwa bi dugal na ci itam tamassuk bi kitaabillah boo demee ba ca biir itam wax na ne waxdaru min quranaa issu rijalan wa nisaan wala siyama nisa fa inna imaama malikan yaqul ma jalastu safihan qattu wa kadalika aqul maanaam àndandoor gu bon gi ma waxoon sànq boo demee ba ci biir da nga fekk ne dugal na ko ci ba indi wéy bi ma tudd sànq ne anil mar anil mar ila tasal waaw boo demee itam ci daamul maddi bi wax na ne wa uaahidukum bi anni sawfa la adaalu lakum bi xawlillahi wa quwatihi sanadan wa walidan shafiqan xamiman rahiman fi kulli lmayadin maddiyan wa maanawiyan ma dumtum ala ahdi mujtamiin alayhi yadan waxidatan maanaam maa ngi lay jaayanteeg yéen ne du ma dëñ mukk ci kattan yàlla ak dooleem di nekk wéeruwaay pour yéen di nekk baay bu am yërmaande ci yéen bu leen yërëm ci mboolem anam yi ci wàll am-am ak itam ci wàll maanaa feek yéen a ngi aju ci sama kóllëre ahd bi nga xam ne nii e, jaayante ngeen kook man feek yéen a ngi ci loolu rek man itam maa ngi jaayanteeg yéen ne du ma dëñ di dimbalanteeg yéen ci loolu kon nga xam ne Baay ittewoon na xam-xam lool ittewoon na itam boroom xam-xam yi temps dafa gàtt ndax yeneen am na yeneen muhaadara yu war a jàll am na ñeneen ñu war a wax moo tax dañuy tënk liñ bëggoon a wax ci jotaay bi ëpp na loolu waaye comme waxtu wi mayewut ko ñi tënk rek ndax yaakaar naa ne liñ jot a wax nii njëriñ a ngi ci te ku ko xool mën nga cee jumoo mën nga cee jànge yu bari ndax Baay waxam yépp njëriñ la te hitam itam lu leer la wa nahju sabili wadihun liman ihtada wa qad khaba man yarju iwijaji wa yatlubu man suma yon yon wu leer la ci kep ku jup rek da nga xamne ne li ma nekk nii lu leer la kep ko xamne itam yaangi sakku safan wi manam di xaar ma deung pour nga contane sa tos manam sa yaakaar tasna ci li ngay sàkku noonu mënoo koo am ndax kenn mënut a gis fu ma dëngee ndax koo xam ne yonent bi sallallahu alayhi la rob kooku du dëng mukk ndax yonent bi sallallahu alayhi léppam lu leer la léppam njub la ñu ngi sant yàlla bu baax beneen yoon di gërëm legendary, bi oustaz Mass ak eh, Cheikh bay cham Zeyna ak ñi ñu fi fekk ñépp ñu ngi leen di gërëm ci njiital Cheikh Sirajuddin ibn Cheikh al Islam di am contentement lool di ñaan yàlla yàlla may ñu ñi fekkee jotaay bi ay ati ati at te itam lépp yàlla gërëm ko sotti ko ci misaan xasanaat mawlana cheikh ibrahim radiallahu anhu yàlla mën na loolu yàlla nañ ko defal kullu amin wa antum bi برهام باء وراء ألف ثم ها ميم مجل فيض تيجان جخن نينان Thank you.